Euh, salaamaaleykum chers internautes de Kawtef Sénégal ñu ngi fii nag ci euh, tudd oustaz euh, Modou Fall donc ñu ñëw fekk fi suñu xarit di jësi daat ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay di leen ziar di am mbégte ak contentement di partager ak yéen waxtaan bi di nuyu internetu Sénégal yëpp di leen jox seen wàccuwaay. ñu gis fan yee yow nga doon tudd macha allah. tey <laughs> nga ñëw fekkee tudd Modou Fall bi naka bébé bi il va bien wala il va bien euh, mooy Mouhamed Askia waaw il va très bien il se bien nga ñaanoo ko rek mu ànd gudd fan ak wér euh, surtout ak teraanga bu dul jeex bu ñëpp xaj. nekk doomi réew mi te it euh, mën servir réewam yàlla na ko yàlla def te it leen ko fàtte si waaw di am mbégte rek ci bisub tey bi. ndax euh, oustaz Modou Fall moom dafa nekk euh, nit bu baax mun naa wax ni c'est pas un collègue mais collaborateur ndax aussi semaine dernière rek la ñëw si sama tudd vraiment te nit amul lu dul bisam donc vraiment mu ñëw teewal ma euh, ñëw def ay baax baaxam donc looloo waral rek ba fa dëgg yàlla nu war ko dellawaat bis bi waaw looloo waral samay tànk ma ñëw ba fii vraiment xamal ko ni yëg bi nga ma yëg Euh, wax fa dëgg yàlla yëg naa loolu ko raw ndax euh, li jóge ci xool ci xol rek lay dellu donc vraiment nu ñëw euh, tey fii nag fekk fa ay mbokkam ay xaritam am ci mbégte bu wér a wér a wér yàlla ne di wax ne yàlla na yàlla def doomam ji mu am ndey ak baay yàlla defal ko gudd fan ak wér defal ko sutura ak teraanga bu ñëpp xaj bu ñëpp bokk mais daal oustaz Modou Fall xarit la doomu ndey la am di jàmm la euh, ku ma sopp la euh, ku bëgg la tamit euh, ci li nga xamante ni mooy mi ngi koy def en tout cas kontaan naa trop tey pour teew ci bis bi. mais mbaa sonaloo ko comme comme Pape Cheikh Diallo nu mu xam nga oustaz oustaz la mais jeune la teg si donc souvent relation ngeen am. relation yi na am mooy relation jàmm ak salaam mën nañu wax ni ñun nous sommes une famille. yàlla boole nanu mais ku ci nekk rek ak yëg-yëg bi nga am sa biir xol donc oustaz Modou Fall nag daf maa yëg te yëg boobu nag moo waral euh, wax fa dëgg yàlla tey sama sama teewaay fii fii ci yëmbal ndax euh, moom nit bu la bu baax boo xamante ni que euh, léeg-léeg nu faral sax di bokk mission yàggul dara àndandoo neen tëkkandoo dem fi Paris ensemble mais on a partagé vraiment des moments inoubliables parce que lépp ci kaf la ci foo la ak ree la da nga naan sax oustaz Modou Fall bi est-ce que oustaz la ndax moom dafa nekk nit bu baax nit bu humble nit bu yàlla defal daraja mais aussi nit bu ñëpp fonk ba pare mu nekk jeune boo ko ñu génération euh, euh, terewul wax fa dëgg yàlla lépp lu muy def safoo réew mi safoo na àdduna te bu waxee ñëpp déglu ko loolu nag euh, c'est pas donné à n'importe qui du ko ne moo am loolu de ce fait le cër la bu rëy buñ ko jox ci bisam bi ndax euh, wax fa dëgg yàlla moom moo ko fi liggéey moom moo fi def lu tax nu sopp ko nu bëgg ko mu jaral nu lu ne. Euh, moo tax na vraiment may am mbégte ak contentement bu rëy a rëy rëy vraiment pour ñoo teew te fii si yëmbal ñoo partagé ak moom bisam bi nga xamante ne tey bisub tuddam di la. Euh, si sidaat xam nga boo ko gisee moom euh, reetaanam ngay njëkk gis da nga ko romb si tali sax mais day taxaw nuyu la donc ñu gisoon fan yee si si rajo bi benn émission yaa am ci ñu bëri dañ mais est-ce que réellement c'est DJ parce que émission boobu après mujjeewul am je pense que Amethou dafa dafa retardoon mais yéen ñaar après sànnante ngeen foofu ay kàddu ku nekk mer te xam nañ ne ay waay ngeen looloo gën a jaaxal ñëpp. mais loolu loolu mooy li ma wax rek yàlla xam na ne sax bëggatuma si sax wax parce que liggéey la rek donc bu am donc euh, mu am retard une heure de temps. Euh, je lui ai dit que peut-être euh, li nga def ni c'est du manque de professionnalisme peut-être il n'a pas compris ce mot-là donc euh, looloo tax il est fâché après on a eu des xam nga des discussions voilà yooyu mais maa ngi loolu tout le temps maa ngi naan sénégalais maa ngi leen ci jégalu bu baax a baax. ok ñun ñun liggéey bi rek ñu fonk moo tax xam nga sénégalais moom tàmmul respecter heure donc bañ ne boo leen joxee heure dañ naan heure sénégalais wala. parce que on n'a pas l'habitude de, de respecter l'heure au fait et que loolu rek moo nu moo tax euh, nu yenn werante yi am ci mais du du lu ñaaw du lu ma ko jàppal du loo xamante ni que euh, dañuy am yenn xàjj ak seen donc liggéey la et que ñun euh, suñu ay auditeurs suñu ay lecteurs suñu ay internet ñun ñooy ñun ñooy nunu gëm maanaam ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre mooy audimat bi nga xamante ni que euh, téye nañ ko biir Sénégal et puis di liggéey mu set quoi en fait dañuy soxla tamit euh, ce qu'on appelle euh, le professionnalisme Euh, donc c'est ça mais sinon y a y y a de grave donc euh, loolu kese la quoi voilà. kontaan nañ euh, la da nga joxe sarax coupe coupe coupe du monde bi wala leel la comme comme bosu Aba. non man man man ndel laa mës a def sax si si si réellement bu bu ngeen xamee si daat si daat moom moom ndel la mës a maye kon bu fekkee ni gars yi xam naa dañuy wax ndel rek dañoo ñëw fekk si ma rek waaw mais ak ah, naa leen accompagner quoi en fait. <laughs> yàlla nañu ndel bi jik ndel abaa ndel la yor man ndel laa yor <laughs> voilà. kon na ko gars yi décortiquer xam nañ xam nañ fi ñuy waxee mais maalaw maalaw Pikine aussi gars yi gis nañ ni que bi mu demee ci coupe du monde bi ñu bëri di ko critiquer naan journaliste journaliste yi ñoo fa waroon teew mais maalaw moom tiktoker la mais créateur de contenu la xam nga ci banlieue bi la nekk di def ay vidéom ak yëpp ñu bëri xeeb ko la fait que mu dem Qatar photo ak yooyu donc ñu bëri ñu bëri di si indi ay ay wax yow nan nga ko gisee. waaw mais c'est un mais <laughs> lan dafa dafa mérité dem Qatar gis nga affaire bi du soxorante bi du iñaanante bi moom moo def li tax tey nu jël ko yóbbu ko Qatar bu toogoon ci këram di nelaw du fa dem bu deful woon dara tamit du fa dem c'est parce que am na lu mu wane am na lu mu def lu convaincre nit ñi donc euh, nen nen baa bi. demoo keneen dem na ne ñaanal ko jàmm fa mu dem mu am fa succès. dañu xew exemple Fa ay Aydara dafa daje démb Alassane Ndour. fay ca Qatar mais Alassane Ndour moo xàmmee Fa Aydara te Fa Aydara xamul Alassane Ndour te Alassane ku ko xam xam ne ne Lyon la def na lu nekk Sénégal ci football pour wane ne rek léegi instant bi xale yi nekk ci TikTok bi aussi. waaw euh, génération yi noo bokkul Alassane Ndour euh, l'international c'est mon ami. il y a pas longtemps euh, on a voyagé ensemble euh, muy sama waay di sama xarit di nit ku baax donc euh, man je me dis am na yenn affaire yoo xamante ni boo ko waree dem defi sur le terrain daf lay jaral aussi nga daal di gëstu ci yu bëri parce que euh, affaire la boo xamante ni que yëfi adduna la yëfi monde bi la donc daf lay dafay laaj nga def yenn recherche yi c'est important génération yi aussi bokk nu xam nga. tey nga daje koo xamante ne que xamoo jalooreem xamoo lu mu def c'est un problème pour poser des questions ce gars-là wala soit nga waxtaan ak moom Alassane Ndour ku ko ku xamul ko ne dégg nga ko donc boo boo gisee nag euh, génération bii dem te remarqué wuñ leen xàmmewul leen c'est parce que loolu euh, lu nu waroon jéem la avant nu fay ag te xam ne dinañ fa dajoog façon nit bu ne donc euh, man je me dis daal moo xam képp ku utiliser Euh, tout ce qui est support de communication dafa laaj ay recherche dafay laaj loolu il faut nii gëstu daf ci am solo histoire Sénégal dafa yaatu mais ku ko gëstuwul foo dem doo bokk boo ko gëstuwulee boo demee fenn doo bokk parce que li ko waral moo di dafa am loo waroon seet te seetoo ko dafa am loo waroon waxtaan ak nit ñi te defoo ko dafa a am loo waroon laajte te ko donc loolu boo demee c'est très normal nga moom ay failles nga tiim. koo xamante ni c'est un joueur international ki euh, a servi son pays tey nga jàkkaarloo moom amoo loo ko wax loolu euh, lu garaaw la donc euh, génération bi vraiment maa ngi di gën a conseillé waat li ñuy def baax na donc mais nañ ci yokku di gëstu dafa am solo nañ ci yokk di gëstu di def seen i ah ndaxte aussi ñoom dañuy liggéeyal seen réew. te bëgg neen euh, bégal askan wi bégal euh, nit ñi euh, nii kontaan ci ñoom donc dafa laaj nii am lu ñuy dem di ko defi sur le terrain nga xamante ni que heure bu ñu demee defi liggéey bi rek liggéey bi dafay complet donc maa ngi leen di encourager di leen féliciter di leen wax ni affaire yi nii la koi donc de toute façon le meilleur resta à venir mais il faut faire des recherches ça fait partie